ñu ngi waajal jël seen i bagage di takk di jël seen i nit yuy liggéeyoon ak ñoom ci sale boulot pour placer leen ci ambassades yi ak ci consulat yi donc euh, di leen xamal ni daal ñoom pare nañ pour yàq suñu réew tas suñu réew bombarder suñu réew créer fi guerre civile dem seen yoon parce que créer guerre civile mooy bugg ñu forcer Amadou Ba mooy bugg def hold up électoral mooy bugg sàcc élection yi teg fi Amadou Ba loolu mooy créer guerre civile loolu mooy créer guerre mondiale loolu mooy yàq réew mi yàqet doog dem sa yoon donc di xam di leen dànkaafu di leen artu ki nga xam ne mooy Moussa Fall ki nga xam ne mooy Mbaye Cissé le général Mbaye Cissé ki nga xam ni euh, moom mooy euh, euh, May Maysa Sele Ndiaye ñooñu ñëpp di leen xamal ni ñun le peuple sénégalais souverain digne intègre pare nañ ñun en découdre avec eux bu soobee yàlla donc di wax sénégalais yi mooy ñun taxaw ñu waajal seen bopp ñu xam ni mbir du yor sab carte rek dem vote ji ñëw toog. di xamal ni on a affaire à un voyou à un bande euh, euh, un bande à à des mafias organisées mooy Macky Sall ak ses sales euh, son partenaire son état en complicité avec la France ñoo bëgg a semer le chaos dans ce pays ñoo bëgg a organiser ay élections de bandits pour mun a sàcc affaire def hold-up électoral jël réew mi di leen xamal ni. du carte kese carte la ak taxaw voté taxaw bañ fa bouger bañ a yëngatu jóg toog taxaw armée de gourdin ne ñu armée de jaas yi de paaka taxaw ne ñëpp dinañ dugg voté kenn du ñëw fenn ñu ne la doo voté wala euh, euh, déplacé nañ la fële wala yóbbu nañ la fële donc loolu la ñu jógte woon di leen ko wax di leen xamal ni Macky Sall décidé wul organiser ay élection yu transparente yu libre yu démocratique waaye bu ngeen ko gisee demee mu woote ay élection mu wax date ba nu mu gën a gaawee parce que daf fee bëgg a jóge mais jógin bu ñaaw daf fee bëgg a jóge sàcc élection yi euh, woo Amadou Ba félicité ko et cetera et cetera donc pour le débat de Ousmane Sonko day génn wala du génn nee naa leen Macky Sall Euh, bu fekkoon processus boobu mu décidé woon bu mu njëkkee bu mu yàqee lépp bëgg a reprendre processus bi boobu dafa amoon bëgg génne Ousmane Sonko parce que ils ont peur de Diomaye Faye plus que Ousmane Sonko ñoom ci seen i wax ne nañ Diomaye Faye day defante Diomaye fay day faywante Diomaye fay et cetera et cetera moo tax nañu surveiller Diomaye fay sax surveiller wuñ ko Ousmane Sonko chaque jour ñu ngi dem ci Diomaye fay ci chambre am di ko visiter di ko palper chaque jour que Dieu fait Diomaye fay mu ngi subir ay pression yu énorme ci fa mu nekk gars yi ñu ngi fay ñëw ñu ngay yëkkati bagaasam ya yëre bu ci gën a ndaw ñu ngi koy faxas ñu ngi xool ba xam yoru portable donc Diomaye fay instant yi dañ koo serré ba mu men ba ba mu ba mu sës dañ koo sës ci miir bi Jomaay Fay nokkeetul amatul jàmm amatul salaam donc ñoom Jomaay Fay moo leen dérangé Jomaay Fay moo leen arrangé wul te ñoom nee nañ comme Jomaay Fay day fayantoo donc ñoom ils ont décidé ne Macky Sall du jël réew mi di ko bàyyee Jomaay Fay waaye peuple sénégalais bi comme nu ma leen ko waxee moo digne et intègre te quand il votera pour Jomaay Fay quand euh, Jomaay Fay prendra ce pouvoir rien ni personne ne pourra l'arrêter bu soobee yàlla incha allah donc di woo toute l'opposition dans sa globalité euh, di woo le le peuple sénégalais digne intègre et souverain ñu taxaw reyante euh, bañ a bàyyi la ñu doon def bañ a bàyyi lañ doon def nekkaat ci moom mooy nekk ci mbedd yi di manifester wu vendredi manifestation sur toute l'étendue du territoire national samedi manifestation sur toute l'étendue du territoire national et ñu continuer ko noonu ba élection yi di mat te buñ fa jóge te ban processus bu commencé ay sàcc di am nañ jaxase lépp nañ bombarder lépp buñ bàyyi dara ndax loolu lañ bugg a jógte te musiba naaru lay bu dee lii ñuy jëgte nii la ñu réunion toog fa wax ko yàlla nañ ci yàlla musal loolu réunion nañ ca ñoom ñaari fan yëpp ña nga ca palais ba di réunion ba deux heures du matin lañ fay jóge ba deux heures du matin lañ fay jóge Macky Sall bu mu ñëw ñibbisee ba léegi demaatul fenn depuis boobu mi ngi toog biir Dakar toog biir Dakar Macky Sall ñëpp xamoon nañ ni chaque deux jours day voyager bàyyi na voyager bàyyi na lépp Macky Sall toog na bagage am jël na ko yóbbu na ko Marrakech manga fa ci këram nga ngandam maami euh, château pare na lépp mais dafa bugg a taal sañu réew mi boyal suñu réew mi sàcc ko jël ko jox ko Amadou Ba dem yoonam ak njabootam loolu la décidé décidé wul toog fii ci Mermoz dafa décidé bàyyi ay garde bàyyi fa gendarmerie bàyyi fa nangam ak nangam dem fii nga xam ne moom mooy Marrakech foofu la fas yéenee dundee foofu la fas yéenee continuer sa vie ay bag seen bagage yëpp ñu ngi foofu def nañ ko ci ay vol spécial yóbbu nañ ko fa dara desetu leen fii dañoo fas yéenee taal réew ma daw dem Marrakech toog fa ci wetu euh, le roi du Maroc donc di leen xamal ni ñun suñu réew nag kenn du ko tasaare kenn du ko boyal bàyyi fi ànd bàyyi fi safara xaw ak doomu taal bëgg a demee noonu dama ne la peuple sénégalais est souverain digne le peuple sénégalais moom mooy voté et incha allah bu soobee yàlla ñun euh, dinañ voté contre Amadou Ba contre ce système contre la continuité bu soobee yàlla te di ngeen fi jógee bu soobee yàlla kon sénégalais ma leen di woo ci fulla ak fayda jom ñi ngeen meloon démb ak bërki démb nga doo leen nangu nooteel doo leen nangu xeetu toroxtànge di leen ñaan lillaahi wa suuli taxaw leen taxaw leen buñ ne rek dem élection rek ngeen di yàkkamti oui élection élection élection dama ne taxaw leen élection dafa ànd ak sécurité élection dafa ànd ak transparence élection dafa ànd ak libre élection dafa ànd ak démocratie élection dafa ànd ak justice élection dafa am lu mu àndal am lu mu àndal donc bu ñuy dem ci terrain boobu mu ñuy woo na fekk ñun ñu bu baax ci bépp parce que nañ dem football nañ dem match nañ dem match nañ dem ngeen waaye nañ dem match mu ne ok na dem ah da di waajal seen bopp da ngeen di waajal seen bopp nee naa leen Amadou Ba amul nit amul population amul ku ko topp waaye depuis boobu benn wax lay wax benn wax ban wax la mooy nañ dem élection nañ dem élection ay nitam naan Amadou Ba xam na ni Amadou Ba xam na ni waa parcelle duñ ko foteel Amadou Ba xam na ni waa këram duñ ko foteel lan moo tax muy insister naan nañ dem lan moo tax ay nitam di insister ci média yi naan nañ dem nañ dem élection ba di si saaga Macky Sall sax ñoom ñi àndoon ak moom di ko toroxal France naan ko non non doo ko arrière continuer ko nañ dem nañ dem nañ dem ci koo xam ne yorul dara du du ay nit la am du nit ñi bëgguñu ko nit ay sàcc la jaar na impôt domaine rajaxe ko jaar finance rajaxe ko jaar budget rajaxe ko ba tey mi premier ministre rajaxe fu mu jaar bin bintul tendance rajaxe sàcc la fa nekk daw donc ñëpp xam nañ ni Amadou Ba amul nit amul dara waaye nag ña ngay fas yéene def le maximum possible pour jël ko yóbbu ko ci élection yi donc par fan la ko teg ci sàcc kese ci liñ ko gëmloo nii dinañ sàcc élection yi jox la maaye nag ñun Sénégal kenn duñ ko nangu ñi sàcc élection di ko ko jox on est prêt on est prêt et on est prêt on sera prêt et pare nañ incha allah pour matal mbir mooy kenn du fi sàcc élection yi kenn du fi sàcc élection yi bu soobee yàlla incha allah one love ina maaw